KMTV une chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wërté lèr ci politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk euh, di turam ak santam di rafetlu seen teewaay fi tay. comme niñ ko baaxee di def rek dañuy faral suñu doxlé ay weer ñu woo presse bi woo mbokk yi wax leen li ñu liggéey ci comité de gestion bi tey nag loolu moo waral woote bi xam naa xaw na am retard tuuti waaye dañoo nekkoon ci période nawet ak ouverture yi mu xawoon xat trop moo tax mu xawoon sooxe tuuti waaye ñu ngi sant yàlla bu ñu may tey bu ñu mën ka doxal ginnaaw bi ñu nuyu président ñuy trésorier di nuyu ñu fi nekk yëpp ñu ngi leen di présenté ordre du jour maanaam ni ñu bëggee tëralee waxtaan bi man maay Ousseynou Diop maay vice président comité de gestion de Clero Sérère au passage waaw kii bi dañ ko bëgg a tëralee nii waxtaan bi bu ci njëkk euh, am na mesures yi nga xamante ne comité bi jël na ko ba doxal na ko xam naa dañ leen koy wax après bi ci topp. mooy billant financier am naa dañuy jox trésor Absa Diouf mu def ko beneen bi mooy perspective mooy maanaam li ñu mébét def suñu kanam boobu président Issa Diouf moo leen koy présenté man nag xam naa maa ngi leen point bu njëkk bi mooy mesure prise par le comité ah mesure yooyu nag defe naa bokk na ci comme di ngeen gis suñu kanam nii muy ay carton de papier ay rame de papier yu comité comité bi jënd jagleel ko école élémentaire nekk ci forage bi waaye aussi ak feem suun bi ah matériel bi nag buñ ka xayma tool na ci trois cent mille francs euh, ay rame de papier nag vingt trois cartons boo ko xoolee ci raam mooy cent quinze raam dañoo bëgg nag école élémentaire bu nekk ñu jox ko ñaari carton muy dix ram ah sëñ bi nag puisque moo moo njaboote ñëpp te moo ëpp ay ndong ay élèves ñu jox ko cinq ram waaw loolu daal la def pour école yi parce que yaakaar naa ne ku jàppale école yi jàppale nga waajur yëpp parce que suñu doom yi ñoo nekk ci école yi te école yi ren comme niñ ko xamee daanaka état bi daf leen dafa xaw a sooxe seen doxalin parce que dafa dafa tere inscription maanaam léegi inscription léegi gratuite la ah loolu tax na bi aussi ñoom li ñu doon am ci xaalis dafa wàññeeku kon day jaadu aussi ñu jàppale leen ci yu mel nii mu mun leen dimbale bu baax a baax waaw beneen bi mooy euh, exonération bu ñu bëgg a def ci ndox mi concernant école yi waaye aussi ak grande mosquée yi nekk ci dëkk yi exonération nag mooy mooy mooy ci boo ko bëggee tekk ci wolof mooy baal nañ leen baal nañ leen lu toll quinze mètres cube maanaam ku consommé lu ëpp quinze mètres cube doo fay dara waaye li ci tegu nag loolu rek ngay fay waaw quinze mètres cube defe naa boo ko doon xaymaa ci ay cinq mille deux cent cinquante waaw côté boobu la waaw waaw grande mosquée aussi loolu ñoom aussi bokk nañ ci mesure boobu xeeb nañ ko nag waaye aussi waaw ak dispensaire waa dispensaire ak euh, case de santé bu tuuli bi waaw suñu semaine mu ëpp lool waaye je pense que commencement la rek incha allah am nañu yéene ñu def lu ëpp li après parce que comme ni ñu ko xamee rek affaire processus la te bëgg nañ daal ñu avancer lentement mais aussi sûrement bañ a rek ba am ay gàllankoor loolu daal la ñu amoon lu ñu bëggoon euh, présenter pour mesures yi ñu jot a jël dimbale ko écoles yi ak euh, lieu de culte yi ah di wax ni rek lii bu mënee am tey grâce à vous yéen jàpp ci liggéey bi parce que comité bi comité bi daf fi nekk rek pour di piloter di jiite waaye population bi ñoo ñoo jàpp ci liggéey bi parce que ñoom dañ ko def seen yëf engouement bi am ci affaire bi daf ñoo yéem sax fuite fu mu amee wala problème jafe-jafe fu mu amee automatiquement dañ lay woo signaler ko waaw am taxaw bu bu mat sëkk et loolu loolu lañ ci doon séntu pour nit ñi xam ne ndox mi du pour comité bi mais pour ñoom la ñoom ñoo koy jariñoo et alhamdulilah depuis boobu léegi yàlla def na daal euh, rëkk-rëkk yi daal bariwul ndox mi mun naa wax ni dal na nit ñaa ngi am ndox ci jàmm ñu ngi fay wax dëgg ñu ngi fay ci ci jàmm loolu lañ doon ñaan te suñu borom ñu koy defal ndànk-ndànk ñun ñun ñaan aussi nit ñi gën a jàpp ci ci comité bi gën a jàpp ci liggéey bi parce que suñu njëriñ la ñun bu baaxee rek ñun ñëpp la la baax la. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu presse bi fi teew di nuyu waa comité forage bi di nuyu aussi ñëpp notable yi fi nekk euh, di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp. di rafetlu aussi liggéey bi euh, mu buggoon def benn bilan bu ndaw rek di leen wax ni bi ñu gëjee def bilan ak léegi yaakaar naa mois de juin la lañ gëj a tase ci forage bi defoon benn bilan may présenté wu aussi fàtte ko may présenté wu man ab trésorier général du comité prévisoire du forage du sud. Le à part juin, il y a eu une rencontre, il y eu un rapport de 2,217,535 535 francs CFA. Le il faut que nous entrée de 3 millions quatre cent cinquante trois mille sept cent ñu def dépense bu quatre millions cent quarante quatre mille six cent trente cinq léegi solde cumul bi mi ngi nekkoon ci un million cinq cent vingt six mille six cent léegi buñ jógee ci mois de juin juillet moo ci topp léegi avec solde de cumul bu c'est un million cinq cent vingt six mille six cent léegi ñu am entrée bu trois million sept cent quarante mille huit cent cinquante léegi ñu def frais mooy sorti li ñu génne ci weer boobu quatre millions cinq cent soixante dix neuf mille quatre cent liñ dese ci weer bi mu nekkoon six cent quatre vingt huit mille cinquante francs léegi record juillet boobu moom lañ débuté ci mois de août bi six cent quatre-vingt-huit mille cinquante francs léegi li dugg ci weer boobu muy deux millions quatre cent quarante mille deux cent léegi ñu financé deux millions cent six mille trois cent cinquante liñ dese ci weer bi mi ngi nekkoon huit cent vingt et un mille neuf cent mooy août bi léegi boo ñëwee ci septembre solde bi bi desoon ci euh, mois de août bi mi ngi nekkoon huit cent vingt et un mille neuf cent léegi entrée ci mois de septembre bi deux millions neuf cent quatre vingt dix mille sept cent léegi sortie bi ñuy génnee un million deux cent cinquante six mille quatre cent liñ dese ci weer bi mi ngi nekkoon deux millions trois cent quatre vingt six mille cent francs léegi moom la ñu débuté ci septembre bi mooy report septembre léegi octobre deux cent octobre lañ ko débuté muy deux millions trois cent quatre vingt six mille cent francs léegi entrée octobre bi deux cent cinquante cinq mille cinquante six mille deux millions cinq cent soixante mille huit cent cinquante li ñu génnee ci weer boobu yëpp deux millions cinq cent soixante six mille li ñu dese deux millions quatre cent quatre vingt mille neuf cent cinquante loolu la ñu débuté mois de novembre léegi novembre bi deux millions quatre cent quatre vingt mille neuf cent cinquante moom lañ débuté léegi bon foofu am na ay dépenses yu ñu def mais sold euh, normal bi ci nekk fin de mois bi cinq cent soixante-neuf mille six cent cinquante boo ko jëlee cinq cent neuf mille six cent cinquante moom la ñu débuté mois de décembre léegi nii nii ak le seize décembre mi ñoo ngi ci solde bu trois millions quatre cent dix-sept mille di jégglu ci fekk octobre bi dépense yi dama ko waroon wax ak euh, sortie yi mais jotuma koo def parce que bi ñuy dugg ci mois boobu si la juste ñu tiré suñuy facture yi mën am xat-xat pour wàccee ko mais dinañ pexe ñu corriger ko ba ñëpp jot ci bu soobee yàlla di jéggalu aussi ñëpp di jaajëfal waa gox bi bu baax a baax waaw le tey seize le seize douzième mois deux mille vingt trois suñu solde ndox mi mi ngi ci trois million quatre cent dix sept trois cent loolu mooy suñu sold bi may jaajëfal ñëpp nag euh, di jaajëfal surtout waa comité bi ñi ma bokkal liggéey bi di leen beral cant ak ngërëm ndax liggéey bu jubee moom du kenn nit moo ko def du ñaar aussi mbooloo rek moo ko mën di wax waa gox bi aussi ñoom ñu gën a góor góorlu gën a téye ndax ñoom ñoo téye ba ñu yegg si ñu téyewul woon ñun ñu fi yegg si ndax mënoon nañu naan bañ a fay ak lu muy nekk seen bos yëpp di leen wax ñu gën a góor góorlu lépp loo gis rek mu jag sot moo tax mu jag mais kenn nit mënul sotti lépp. waaw di sant aussi waa presse bi presque ñoom fu ñu fu ñu toll rek ñoom ñi ngi ak ñun di leen jaajëfal bu baax a baax di gën a woo gox bi yëpp nag na si ñëpp jàpp rek comme niñ ci jàppee ñëpp waa comité bi kese mënuñu liggéey liggéeyu ndox bi di leen jaajëfal bu baax a baax. waaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, di tàmbale nuyoo ñi fi teew yëpp euh, di ko commencé kilifa bële toog muy euh, suñu nijaay Mamadou Diouf euh, ci présentation bi fàtte woon nañ leen wax ne président CGE euh, ñi teewal CGE euh, yi ñu ngi fii mel na sama doom baay bële jon jógee se représenté école suun ak sama jigéen bële Fatou Ciss jógee si de recasement bi teewal fi école si de recasement bi ak sama nijaay Mamadou Diouf teewal fi école Landu ak Cheikh Tidiane Ciss mu teewal fi école catholique woowoon nañu école yëpp mais xam naa peut-être xat-xat yi ñoo tax ba ñoom jotuñu teew ak comité bi ñu fi teew euh, mel ni Ibrahima Ciss euh, Seynabou Seck euh, Absa trésorière ak Ousseynou ak man mi ñàkk solo bi tuddee ma Issa Diouf bon ñoom def nañu Ousseynou def na présentation mesures yi nga xam ne jot nañ ko fi taxawal muy wàllu rame de papier yi ak exonération yi ab sa trésorier bi ñëw na ci bilan financier bi xam naa avant may dugg ci troisième point bi muy perspective damay leeral tuuti lu mel ne mesures yi Ousseynou wax sànq te jël nañ ko mu mel ne rame de papier yi ñuy jox école yi ak euh, exonération bi nga xam ne ñu ngi koy defal euh, lieu public yi nekk ci zone bi yëpp parce que su ku fàttaliku ginnaaw tuuti comité bi bi muy dugg ci jafe-jafe la doon dundee ay xat-xat yàlla dogal ñun ñuy jéem di daanu di jóg di jéem di defar di yàq di defar ba ñu ñëw jàmm jëmmu benn période ñu desaloon waa seen CNO lu tollu valeur trois millions bon mbëkk nañu fu ne lu mel ne AIBD ay yenn société de la place ak yenn bonne volonté yi pour ñoom ñu mën ñoo combler loolu pour ñu mën a gën a mën a am fit ak tànk yi ñuy jëmee ci kanam mais yàlla dogal na aussi ñoom xat-xat yi ñu nekke ñoom ñooñu ñuy doon sollicité ñoom ci xat-xat la ñu nekkee aussi ñu nangul leen ko mais ñun néanmoins ñun jéem nañu di góor góorlu ba tey tey ji nii depuis mois passé deux mois ci ginnaaw sax laay wax desaluñu seen o benn bor loolu c'est à clarifier fi ñu toog nii présentement nii lu dul facture bu ñu doog a jot tey ñun jotalu seen o desalatuñ ko benn bor yàlla dogal na aussi dimbale nañu ba nii nii nii nii comité bi ay ngañaay lay wax mooy maanaam lu ñu tuddee bénéfice ci tubaab bénéfice yooyu nag bi ñu commencé cumuler ñu gis ne aussi comme Ousseynou nu mu ko waxee jot na askan bi bi dëkk ci gox bi aussi sentir ci seen bopp ndax aussi denc xaalis boo xam ne euh, chiffre bi rek ngay xam xamoo njëriñam ci biir askan bi aussi c'est presque sans am na valeur mais valeur am réel mooy que askan bi ñam ci te mënuñu ko woo ne ñu naan la ah Ousseynou jëlal juróomi dërëm bi tonton Diouf jëlal ñaari dërëm frère jëlal ñetti dërëm léegi ñu xalaat ci moment yi ñu toll ni école yi am nañu jafe-jafe te aussi surtout école primaire yi dañoo toll ci composition ñu naan ah ñu waxtaan ci autorités yi ñu xamal leen aussi école yi mën nañ leen dimbale ci rame de papier moo waral lim boobu mu lim sànq muy trois cent mille francs yooyu ñu jëndee ko vingt trois kes mu toll ci cent quinze rames de papier ñu jagleel ko neuf école primaires yi nekk gox bi ak CM bi ci zone sud bi mais dañ cee boole aussi lelo ak tugani parce que ñoom ci mbir bi la ñu bokk xam nga fii sept la mais fële deux yi fa nekk muy neuf ñoom ñu boole leen ci CM école bu ne wax na ko di am ñaari kees muy maanaam dix rames de papier CM bi comme moom moo gën a njaboot ñu jox ko cinq caisse muy vingt cinq raam loolu mbir boobu ngeen xamee ne aussi li ñuy jël jëlewuñ ko ci poosu absa jëlewuñ ko sama poos jëlewuñ ko poosu keneen ci poosu gox bi lañ ko jëlee muy bénéfice bi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi ñuy liggéey ñun waxoon nañ ko ne am nañu yaakaar ne ndox mi mën na yore boppam ndax bëri na trop xëccoo mbiroom xaw ma nan lañ koy waxee xëccoo jàppal bàyyil ndox mi non problème yi ci nekk kenn mënu ko gérer mais ndox mi à partir de maintenant depuis trois mois ñun xam nañu ne ndox mi mën na gérer boppam comme alhamdulilah desalatuñu benn bor fi mu nekk nii je pense que jéem wuti bénéfice jéem a wàññil askan bi coonam yi ñu commencé ko ci école yi lieu public yi muy dispensaires yi case de santé yi école élémentaire yi juma yi CM bi pour que ñu wàññi commencé leen wàññi te am nañu mébét am na nañuy yéene weesu foofu ba leneen mën cee xëj boobu clarification laa amoon euh, am na benn point bu Ousseynou waroon laal tuuti muy euh, aussi branchement yi abonné yi depuis bi ñu fi nekkee aussi wax dëgg fa yàlla confiance bi nit ñi dugg ci am ci ñun tax na ba mu ngi mel ne objectif bi ñu amoon muy que lëf ñu fexe ba robinet public yëpp dañ ndox mi mën a fekk si nit ñi ci biir kër gi jigéen yi ñu noppal leen ci côté boobu nga xam ne léegi kenn dootul yennati paan di dox distance bu gudd pour nga yóbbu sa biir kër mais sa biir kër ngay yër abonné yi nag ñu ngi yokkeeku macha allah dëkk yëpp léegi parce que am na robinet public yoo xam ne sax commencé nañ ko éliminer donc loolu di ci sant yàlla bu baax aussi di ci sant aussi nit ñi population bi nga xam ne ñoom wax sa wax na ko Ousseynou wax na ko ñoom ñu jàpp ci liggéey bi euh, ñu ñaan yàlla rek ñu continuer aussi di ci jàpp pour ndax ñun loolu yëpp ñun ñoo ko bokk te ci njariñu gox bi rek la ci développement gox bi la point point bi ñu ma sasoon pour moo wax mu perspective mooy maanaam ma yi ñu am ci wàllu liggéey bi ndax biñ fi ñëwee dañu doon fekk liggéey bi ay nit géré nañ ko euh, mais dafa am loo xam ne dañ koo gisoon mu sooxe te euh, ci qualité liggéey bi aussi mën naa ne gàllankoor la dinaa ci gën a ñëw lu tax ma ne gàllankoor la parce que benn ru kii nekk ru euh, compteur yëpp dafa suufe dafa lalu ci suuf ñun à chaque fois am na yoo xam ne chaque weer da ngay obligé di nettoyer di nettoyer waat ndax loolu ci qualité d'abord compteur bi la beneen bi aussi ak suuf si nga xam ne day dë mënta dëkk ak moom moom day tax ba compteur bi di gaaw a yàqu wala day dem bi chiffre yi dootoo ko mën a liirati bon beneen bi aussi ñun compteur yi ñu daan utiliser bu njëkk ba ñun ñu laaj ay techniciens yoo xam ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu plomberie yi ñoom ñu xamal ñu ne compteur yi ñuy utiliser waruñu ko sax utiliser parce que lu tax waruñu ko utiliser sensibilité moo rëy soit dinga nga lor client bi soit nga lor sa bopp soit dinga nga lor client bi soit nga lor sa bopp parce que yi xëy na sama xam-xam kiiwu ci mais ñi nga xam ne ñoom ci plombier plomberie la ñuy liggéey li may wax dinañ ko xam mooy compteur yi dañ ko classé par norme ñetti classe moo am muy classe A classe B classe C te compteur yi ñu nekk yore newul ci benn ci classement boobu mooy cest à mu wax ko mu leer mooy compteur yi normé wul comme compteur yi normé wul nag bi ñu ko bi ñu ko waxee ñun ci la ñu commencé branchement yi ñu mujjee branché yëpp compteur classe B la ñu utiliser la jënd ñu tegal ko client bi parce que mooy compteur boo xam ne normé na te mooy compteur intermédiaire entre classe A ak classe B léegi nag pour yi passé ñun ñu ne suñu ñëwee ci point de presse bi ñun ñu waxtaan ci askan bi képp koo xam ne bëgg nga ñu changé sa compteur yëkkatil la ko mu kawe yow soo ñu ko signalé ñu waxtaan ak yow ñu jéem a seet mais su boobaa parce que ñun amaguñu kees boo xam ne dëgër na dëgër boo xam ne ñun dinañ ko mën a gérer compteur yëpp ñu changé ndoo ko mais nit ku bëgg mu intéressé la te yow nga bëgg sa nattu ndox bi fiable mooy maanaam mucc ayib soo ñu ko waxee ñun dinañ wax euh, dinañ seet naata lay toll ñu waxtaan ci plombier bi mu wax ñu ko ñu seet moo ko main d'œuvre am nan naka lañ ko changé loolu ñuy ñaan yàlla aussi population bi képp ku ko mën rek nga jéem cee sóobu parce que loolu mooy tax fiabilité euh, ndox mi euh, natt ndox mi mën a nekk beneen bi muy wàllu politique d'extension bi nga xam ne bëgg nañ ko def ci kër yi nga xam ne dañoo xaw a sori euh, nit tiwo euh, bi dafa leen xaw a sori ba tax na ñoom mënu gu xëcc ndox parce que sànq wax naa ci biir wax comme ñu ngi jëm ci wuutum bénéfice léegi xaalis boobu mën nga ko investir dellu ci askan bi mooy maanaam fépp foo gisee juróomi nit yoo xam ne mën nañu xëccal seen bopp def branchement ñun comité bi ñun ñu chargé wu def extension ba mu ñëw ci yow yow léegi ñëw nga fay sa branchement ñun ñu dugal ñun ñu dugal la mais mais comité loolu euh, extension mooy tuyau bu mag bi ñëw ba ci yéen loolu charge comité bi la loolu la ñu waxoon ne tey ñaari ñaari taxawaay yoo xam ne fas na ñu yéene à partir de mois de janvier ñu door ko muy maanaam euh, yëkkati compteur yi ak changer compteur yi nga xam ne normé wul beneen bi mooy jéem a jënd euh, tiwo yu mag yi pour jéem koo jegale askan bi nga xam ne ñoom tey tey ji ni sori tiwo bi tax na ba ñoom mënuñu ko ci euh, mënuñu ko mënuñu branché euh, avant may jeexal nag sànq bi ñu nekkee fii sax di réunion ay vers onze heures midi dañu indi indil benn facture u Sen'Eau ñun nag mosuñu wax pour ci problème facturation seen eau mais bi yoon dañ ciy wax lu tax ñu bugg koo wax ci point de presse parce que lépp lu ñuy am ci jafe-jafe wala ñuy am ci lu mu mënta doon aussi day rafet ñun ñu wax ci ak nit ñi ñun na euh, facture baa ngi nii dafa di facture boo xam ne euh, dafa teguwul ci yoon c'est la première fois nag ñu wax ko lan mooy facture bu teguwul ci yoon parce que facture liñ ci xam mooy li ñuy def ak ñoom liñ ñuy def seen o day ñëw mois bi ñëw relevé lan mooy relevé moom mooy maanaam numéro yi nekk ci compteur bi mu jël ko mooy li li ñu li ñu li ñu li ñu naan ci ndox mois prochain mu ñëw defaat même chose moom mu relevé ñaari borne yi mooy maanaam li mu mujjee relevé moyen li mu njëkk relever loolu mooy consommation ndox mi mais mois bële passé dañoo njëkk constaté ne ñun dañoo toog lu mat quinze jours gisuñu suñu facture ñun bi ñu waxtaanee par téléphone man on s'est chargé ñun ñu dem seen pour réclamer suñu facture parce que ñun liñ ciy daw factures yi cumulé ñëw ñu indil ñu jafe-jafe ñoom bi ñu demee ñoom ñu dañu ne facture bi ñun ñoo leen ko waroon indil mais beneen facture sax génn na ci faf muy ñaari facture bugguñu ko bu ñoom bugguñu ko joxe ma ne leen noo jox leen ñu ko ñun ñu fay ñaari factures yi ñoom bi ko cumulé bi ñu ñëwee ma jox ko Absa Absa woo Ousseynou le lendemain ñoom ñu dem ñu fay mais mois bi bi ma fa demee ñoom dañu ñoom ñoo ma ko wax sax avant may sori ñu ne seen compteur bi de am na problème ma ne leen ci lan mu ne ma ñu ne ma ah facture bi compteur bi de dafa mel ne ni muy dawee dafa commencé rythme bi dafa commencé wàññi kon compteur mën nañ ne baaxul ma ne leen comme baaxul lu baaxul dañ koy changer ñoom ñu ne ma non commandé nañu benn su ñëwee ñun commandé nañu compteur su ñëwee dina ko ma ne non changé leen ko moo gën ñu ne ma non on va gérer ça comme ça bon ma ne leen nag comme wax ngeen ñu ko wax nañ leen ne changé leen parce que ñun bugguñu dugg ci problème ñoom ñu ne ñu bàyyi ko noonu dox changé luñ ko changé wuñ ko ba mois bi ñoom ñu ñëw ñu indi ñu facture consommation cinq mille huit cent vingt trois mètres cubes bon duma ci gaaw parce que dama bëgg li may wax ni ku ko bëgg a noté nga noté ko cinq mille 823 mètres cubes facture totale bi li Nous consommer nous la ñun ñom suñu indi les facture ñun dañuy dem dañuy relever aussi facture bi diko diko suivre mais nous biñu suivre facture bi ñom un index bi mujjé cest sen relevé bi 5000 non 359376 le cubes, nous avons nga dindi nga di nga nga ak suñu différence ñun bi ñu calculer différence bi dem na ci quatre mille trois cent vingt six mètres cubes yoo xam ne ñun xamuñ suñu compteur marqué wu ko quatre mille trois cent vingt six mètres cubes léegi normalement seen facturation bi warul àgg fu mu àgg woon ñun nag woo nañ leen tey suba wax nañ leen ko nee nañ leen ñun si quelle base ngeen ñu facturer mois bi parce que ñoom xam nañ ne compteur bi am na problème ñun wax nañ leen ni dindi leen ko ñoom dindi wuñ ko mais wax nañ leen ko te ñun bàyyi nar nammuñu bàyyi ko noonu muy sedd parce que lu toll ci quatre mille trois cent vingt six mètres cubes nga bëgg ñu ko facturer loo xam ne tegoo ko ci ban base dinañ ci sol suñu dàll incha allah à partir de mardi dinañu dem ci sous préfet signaler ko ko ñu photocopier ko jox ñu notification ñu jox ko notification yi ñu dem ci directeur régional bi te ñun bi ñu waxtaanee tey sa suba ñun nammaguñu fay facture boobu tant que éclaircissement amul parce que Sen'Eau du société bu ndaw taaba taaba du ñoom ñoo ko war a mën a def société bu toll na Sen'Eau durant deux mois compteur bu défectueux mënuñu ko changer ñun mënuñu xam leneen loolu lu muy nu nuyoo seen eau du bu ndaw société bu mag a mag société yu gën a rëy Sénégal ci lañu bokk mais nag loolu ñu xamal ko askan bi ñun lu luñ ci mën suñu laay kattan dinañ ko def pour que loolu ñu am ci lu leer pour ci mun ñu mën a sukkandiku parce que facture bu daan ñëw suñ ko vérifié ñu seet ne amul erreur amul dara le lendemain ou bien ñaareel ñetteelu fan ba dañu daan fi dem fay yi mais bii lii ëpp na te ñun duñ ko nangu fay tant que ñun amuñu ci lu leer donc loolu benn euh, lu ñu waroon leeral la aussi ci askan bi xam naa àgg nañ ci cëppaandaw bi euh, ci point de presse bi euh, di sant ñëpp di gërëm nag sànq aussi avant may kii tëj côté boobu presse bi mënuñu ñàkk sant gërëm presse bi parce que ñoom ñoo dox suñu diggante ak askan bi ah, di leen ñaanal comme d'habitude rek yàlla barkeelal liggéey bi ba ñoom ñu am ci chaîne de télévision yi gën a rëy Sénégal waaw ki ab euh, Absa mu ngi may wax ci suuf naa sant euh, plombier bi muy Abdourahmane kooku moom mention spéciale koo wax dëgg fa yàlla ñun euh, bëgguñu sax di wax def point de presse di tudd tur ak booy bi mu àndal Fall wante également conducteur bi muy Mandiaye mu dëkk suun ñu ngi leen di aussi remercier bu baax a baax ci liggéey parce que su dul woon ñoom euh, vraiment parce que aspect technique yi ci ñoom la dépendre ñun xëy na dañuy nekk seen ginnaaw rek di ma mëttali liggéey bi donc euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah di jéggalu bu baax ci kaddu yi ñagas yeeg xam nga rek comme ñun mën ñu wax dañuy jàng wax rek di jéggalu ñëpp su nekkee rëq-rëq am na ci ñetti prise de parole yëpp man ma en tant que président maa ngi jéggalul ñëpp xam na yéene bi mooy mëttali liggéey bi rek ci yéen ak euh, jottali leen aussi li ñu nekkee asalaamaaleykum wa rahmatullah KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te leer ci politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse